assalaamu asalaamaaleykum viewers ñu xam ne ñoo ñu nekkal di seetaan si réew mi ak si àdduna bi fii si télé GMTV maa leen ay sant di leen gërëm di leen wax ne welcome si programme bi xam ne mooy kaddu mbedd gi tey dañu war a toog about Essa Faal loolu gisee si mbiri Essa Faal lu mu wax ne dafa bëgg a nekk président yi Gambia tey lool moo doon suñu topic bi duma def dara lu dul ànd ak suma caméraman dem nit ak nit ñi ku nekk wax si sa xalaat caméraman follow mi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. oncle na nga def. maa ngi fi. mu nga ñu wax noo tudd. Alhaji Silla dëkk Wili Ngara. ok oncle ñi la waa Djim TV ñoo fi ñëw di laajte waxtaan loo leen dégg Essa Faal lu ma loo foog Essa Faal lu ma ne dafa bëgg a nekk président Gambie. waa opinion rek nga laaj de man sama opinion moom laa la waxal. waaye daal su ma doon moom moom waroon na juma tray loolu ci suma xalaat man waroon na juma tray loolu xam nga fil bi mu nekk da rôle bu doxalee nii su ma doon moom daal mu nekk si lim nekk moom moo doon di gënal te moo gën si moom soo amoon ko ko advice dëgg daal loolu la a def bi ko wool bi yëpp recommande nañ ko si loolu mënoon nañoo dem sax ba yeneen réew firtoo ni firtoo ni yeen am problème yu mel seen réew sax ñoom ñu oo sax ofo ko xaalis bu bëri pour mu liggéey leen bu ko international woo ko la waaye affaire yi président bu ko doxalee daal kan ko ko xelal daal xamal daal waaye loolu daal is not uh, right waaw ci suma xelaat man waaw bu moom daal nag am leneen lu mu def lu Euh, dafa bëri affaire corruption nguur ci boppam moo bëri affaire corruption yow wane nga ne da ko jub nga te wane nga ne lu jub ngay defar te gars yëpp da ngay war a jubbanti si raayet te government ci boppam itself dafa corrupt yow nga war a ñëw nekk si loolu moom si boppam mu ngi track himself Essa Fall bu defee loolu mu ngi track himself waaye man bu mu doon moom moom du ma ko nangu du ma ko def bi ko nekkut film daal ci suma xelaan man waaw. so yow loo foog like da nga ne Essa Fall su duggee like su nekkee président du mun a téye réew mi. déedéet war na koo mën a téye waaye si li mu wan ñi ne moom la jàng ak si li moo def ak li mu bugg a duga dafa différent. xam nga ki nga xam ne yaa ngi àtte lu nekk nga war ko teg ci woon right track wax naa ne government si boppam moo crop te bu duggee mbos goosuraan comme ça lii jaar ci gars li nekk ci gars yi rek moo ñëwaat ci moom bi ko african président ni moom daanaka olof démarré si yéen. loo ne government bi dafa korop lu tanga ah yow gisuloo ni mbir mi ni mu dee demee du la wax sax Gambie de african président yëpp benn lañ ñëpp a korop seetal benn rek laa jox benn sample. Euh, Uganda réew bu mel ni Uganda président ba fa nekk 1986 nga xam ne boobu mag ñaa ngi da xale ba tey mu toog ne du ma wàcce sa morom wala moromi kii wala sama moromam fa toog xale yi ne bëgg nañ ceeñ moom di sixième ñeneen di sixième ñeneen di sixième african président yëpp a korob ku ci nekk fa nga korob bàyyi foos Africa ni ñu waroon a doxalee suñ ko doxalee téye suñu réew mi ni ñu ko war a téye suñ continent bi doxal ni ñu war a doxalee liggéey ni tubaab bi danañ jógee dëkk tubaab ñëw fii da ut si suñ ñun insrof ñun ñu génn because we got everything mineral bi yëpp mu ci biir suuf si man naa daanaka am half American la because I was outside for long time. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sala nga dem mu ñu noo tudd. maa ngi tudd Maimouna Ndiaye. ok Maimouna ñu la waa GMTV Essa eh, Faal lu mu wax ne dafa bëgg nekka nekk président Gambie lan mooy sa xalaat si loolu. ah su ma xalaat loolu moom Essa eh, Faal nekk na ni koo xam ne daal nekk président daal comme beetu kenn because moom am na lii bi am na sañ-sañ bi daal ba pare gëm naa ne daal mun na moo nekk président mun na moo suñ country su toogee mun na moo yóbbu dëkk bi si kanam. waaw man loolu laa believe ne mën naa yóbbu dëkk bi si kanam. Mm-hmm. salaamaaleykum. waaleykum salaam. soo naa def. ay cool. mu nga ñëw noo tudd. Babacar Sall. Babacar Sall ñu la waa Jemti bi ñoo fi ñëw am wataan bu ñu bëgg a waxtaan ak Jemtu Essa Fall lu mu wax ne dafa bëgg a nekk président Gambia lan mooy sa xalaat si loolu. ah waaye man comme président dama né amna ño xamné ni buñ taxawé président pour pour bëgg taxaw président rek dañu dañu yaaxase naal ndax président nekkul kum neex nga dugg fa xaalis moy dugg ñun Gambien ci légui ño wara éw ci suñ bopay ñu xol ko xamné président bo xamné ne nañ bi because ño fi mëna a nit ño fi mëna a nit anga ñi respecté suñ bop état val deug la man bu gëmé bopam man na taxaw mais nit ñiitam nañ gëm nañ xam ku nekk na xam koo war a sànnil sa kii rek koo xam ne kii amal nañu importance ak amaluñu importance loolu laa lu ma si wax man wasalaam. su yow Essa right su nekkoon yow nangu nga loolu su nekkoon président nangu nga loolu. man manuma bañ loolu su ma këyit laa mën a assuré man su ma carte man duma ma ko ko loolu laa mën a assuré man. salaamaaleykum waaleykum salaam sista. loolu na def. jaama rek. nga ñu tudd. man maa ngi tudd Cheikh Ibro ñu la waa GMTV ñu fi ñu am laajte bu ñu laajte Essa eh, Fall lu mu wax ne dafa bëgg a nekk président Gambia la mooy sa xalaat si loolu um, to me si man man ay supportuma ko daa to me xam nga ku nekk ak opinion am because Ensa Fall dafa commencé liggéey bu xamante ne jeexalut ko so to me daf ko war a jeexal before mu ñëwaat taxaw mu ne dama bugg a taxaw pour nekk président because xam nga nit ñi ku nekk ak opinion am ñeneen ñi duñ gis ne xam nga Essa Faal dafa bëggoon lii before dañoo wane bi lii moo tax mu jëna a bëgga pour mu nekk as a lead counsel in TRRC. dafa am liggéey bu ñu jeexalut ban liggéey la stade ba pare jeexalut. TRRC. jeexalut ko to me because you know report bi jéenut te report bi su jéenoon be ku nekk mu gis lu fa def I believe. you su nekkee lu xamante ne luy lifin Gambian si dinañ taxaw ñu ne ok anyway Ensa lu mu def you know na kon maybe ëllëg Ensa Faal suñ ko saanee karta mun na def yii nii yëpp waaw man loolu laa am pour wax yi no asat naa wax. asalaamaaleykum. salaam. bu nga ñëw noo tudd. Nte Salah Cissé óolu yu ndëm. ok Ensa lu mu ne dafa bëgg a nekk ah, ma nekk Salah loolu. Ensa ntolde jakaldale bitum fata fananɓe kelen dolti fata kelen dolti maalo bari musori ndiɓe lolo président ya ntolle ka bulo ko siye ntolle kan nadi mbaali fiɗijen kalle wulo kono ni sita bareta ima musol muta fenti yen je ñe plateau men ɓen kunto tan kamani ɓoto ñini ñinoto tota, ma tota sotono je andum ka ñew san dajawol sa sidulaɓe dame men ɓe sidula men te sidula imol ɓe wulindi je silantol musol jomol tal wala nan ko insafal asibeteya bari ndana maɗa me ñamatole ka ɓawi président e tolole ka président parce que fo sufficia mune nango fo fol si fisia mo kendol mam fisia ha mo kendol mam fisia mbe bata kono e mbe bata kono musoli batata ni marsoto mo ka balu wolto marsoto mo kala hajo jara de kay diul la karam wojo wol sa ni na tawol wulini tribile ba kulle law do mo robo no mam be bu nekela ha abeni koleya nyaw mam men si ni ya asika ya samba ya ya ya ya ya ya asamba e bata ha salaam maa ngi fi. mu nga ñëw noo man maa ngi tudd Aïssatou Diallo ñu xamee man Nabiya maa ngi dëkk Old Yundum. ok Essa Faal lu mu wax ne dafa bëgg a nekk président yi Gambia. mu di jibale jigéen ñi jigéen si marché bi. marché Costa bi sonn nañ. jigéen ñi ute seen ñu dundal seen njaboot yi. xale yaa school ñu ngi fay. waaye ñun ñuy dawle di ñu dawale amuñ fu ñuy jaayee Essa Faal boo toogee bu ñu mel comme ñooñu bul na boot nekkal sa bopp salaamaaleykum joxal kii te. salaamaaleykum maa ngi sur waa Kango de. ok ok salaamaaleykum. maaleykum salaam. yaa mu nga ñu wax noo tudd. eh ntema maa ni surwa ka bari nga maa ni mande ka kaw. ok eh safa lu mu wax dafa bëgg a nekk président Gambia la mooy sa xalaat si. eh safa la kala fita kela président le ntel musol lafita min na fen fen din ba sila banko ka min yalon ko ba kela musol ma ko ilati e ba kela musol la nyaaji lati ntel ni telomo kadu folo folo kala jangel jamba nyame mbuka lando subala subala subaba kumala don vila na binamba wa firo ken dimba yalla kuwol bambulu lonkili ba jana su kono kuwol ba jana fem fendi ba kela president yim banko kanja mi yalla ko ba kela musol ma ko ilat e ba kela le fondin kel ma ko ilat kadu sate mu ku dan tanet musolo mu fondin kel fem fendi ba sire ba sate ba sambala ni musol ma ko intel ni telom ni ko ba kela musol fa salati intel ni telom ali ma ko musol batatale ali ma ko musol batatale mbatala dukara alim wol ma koyi peresidan peresidan basila ni ni muso mu niitelo mba ni ni muso lin tey kaatu muso le ka peresidan o sindi ni muso ni pareta peresidan peresidan ye boyi mbe boyindi lan kaatu ni ko subaali nga taa karite fayola muso wolle ka ke nomba wanti ni ya konte mo keme muso le ka tan konoto be mu muso le so ali muso le ali ma koyi mbatata le andu sai nu gambie mbe ñañantere yel lale mbe ñaye yele alman sola saabu ñimala feŋo fe ni musatela kayroti alma ala yo peresidan o adina ye si kila ba horomoto asalaamaaleykum. waaleykum salaam. oncle na nga def. jaama rek. mu nga ñëw noo tudd. maa ngi tudd Kansilo Mbodj Lamine Badji. Kansilo double as the admin secretary APRC. ok ñun ñoo nekk GMTV like dañ bëgg a laajte Essa eh, Faal lu mu wax ne dafa bëgg a nekk président Gambia lan mooy sa loolu. waaw Essa eh, he parce que ah, ku nekk ni nga gomee noo mën a contribuer towards the development of this country waaye for me dama it is wrong timing. Um, later Munakaron time in Moine, he was assigned to work on the TRRC as the lead counsel. So Limo won Ninyi he was using the TRRC to gain popularity, political popularity, which is wrong. You lii rek moom moo moo tax si li nga xam ne si loolu la eesa why should Harun to a better time, Munyo as a citizen, you know, everybody has the right to run for presidency. But, you know, watom la ak kanya ko wararef. Ak lan mo hamne mo you know, at stake. So nga bëgg wone it's too early for Esa fall contest. to run for elections as president. Two, uh, mu nge wéral li nga xam ne loolu la APRC doon wax since inception of the TRRC ne ESA and his has an agenda and their agenda is, you know, to castigate Yaya Jame, you know, and then, you know, I mean, Tani Mere Yaya Jame, in order for them to get popularity and run for presidency. We said this long time ago, and today it is happening. Tey loolu moo xew so mu ngi wéral ñi xam ne loolu lañ doon wax ne Essa Faal ak TRRC bi dañoo am agenda seen agenda du pour because soo seetloo the mandate of the TRRC is to look at the truth, reconcile people, and you know, give reparation. solutions to people nga seet nga establish nga nga dégga ba pare ñi nga xam ne ñoom ñoo am ñoo jotee nga jubale leen ñu nekk benn parce que dëkk bi dafa ni moom li ma wone mooy ne he's not giving out you know he's not playing the role of nga xam ne loolu la expectancy moom from the TRRC ne benn mu establish dëgga ñaareel bi mu réconcile dëkk bi ñetteel bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo war a ñoom ñoo ñoom la war a jox ndàmpaay ñu meg so jox nañ leen waaye instead ñoom dañuy use TRRC bi popularize sen boppa pour ñu mëna am you popularisme pour mëna run into elections wa alaykum assalam wa rahmatullah papa na def nga ñëw no tudd waaw Babacar Diallo la tudd ok pa ñu la waa GMTV Essa Fall lu mo ne dafa bëgg nekk Gambia la mëna ka saxala ci lool waaw suma xalaat moy kon ko doomi réew mi la doomi rew mom mun na taxaw waaw bu ko constitution bi maye pour mu taxaw ah, na taxaw ñun li ñu li amal ité ñun mooy ku ñuy liggéeyal Gambia pour mu dem ci kanam loolu rek mooy ñu intéressé leneen intéressé woon lu mooy loolu waaw. képp kuy doomi réew mi nag te nga xam ne boo taxee buñ la joxee réew mi ëllëg da ko liggéey taxawal am nga droit taxaw kon ko doomi réew mi ka asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw ñu ngi nuyu waa GNPP GNP TV ak ñi ko déglu yëpp ah, daa am kontaan ci seen euh, taxawaay ak seen xite di wax ne tim Essa Faal su bëgg a taxaw pour nekk président Gambia dëgg la doomi réew mi la jaadu na war na koo laaj ndax doomi réew mu nekk jaadu na ci yow nga futteeku pour taxawal si réew mën naa moom gis na ne Gambie am na jafe ñu ci ay tolof tolof te mën naa moom foog na ne mën naa liggéey mën naa dimbale Gambie si tolof tolof yooyu loolu moo taxaw mu am ne boobu kon war a gala si képp koo xam ne doomi réew mi la nga am yéene pour liggéey réew mi nga taxaw pour gis ne Gambie dañuy dem ci kanam. li ñu see yokk rek mooy nag xam ñu ko nuyu di nuyu di ko ñaanal moom itam di ko encouragé mu gën a góorgóorlu bu baax te muñ xam ne politique képp ki dugg lu nekk da nga ko dégg di wax itam mi nga xam ne la bokk géew bi ñi nga xam ne ñu ñëpp Gambie benn la ñu bokk ndey bokk bàyyi te fas yéene liggéey pour Gambie dem ci kanam képp ku ku mën a doo ci ñun rek waroon la ci yow taxaw pour jàppale Gambia pour Gambia mën a dem kanam ñu ngi nuyu ñëpp wa salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaw man maa ngi tudd Mbaye Cissé dëkk Oryundo ok ñun la waa Gént bi ñoo fi ñëw laajte Essa Faal mu wax ne dafa bëgg a nekk personne Gambia lan moo nekk sa xalaat si loolu. waaw comme ni ko ñeneen ñi waxee rek doomi réew mi la am na xam yaakaar ne am na xam-xam bëgg na réewam ñu am nañ ci moom yaakaar parce que am na xam ku doomu réew bu ne sañ naay laay réewam pour bëgg koo liggéey ah, li ma xam ma li ma yaakaar mooy képp ku képp ku ut réew li ngay wax ak boo amee réew day day lu lay nekk benn loolu moo ci xaw a jaaxal. boo bëggee réew mi li ngay wax ak li ngay diggee soo jotee réew mi genn wàll gi ngay def genn wàll gi doo ko mën a def dafa mel ni bi ngay wax xamal li ci biir moo tax waaye ba nga duggee ba ci biir xam liy dox moo tax def xool na nga doon waxee ba pare am naa ci tuuti xaw a xëy na suma xam-xam bëriwul wala ñu ma foogee du noonu mooy moom fi mu génnee ci TIRS bi mu génnee nii ni ko ci nit ñu doyloo ak street bi mu ci wane ak dëgg bi mu ci doxal ba nit ñi doyloo ko ci man su ma moom damaa xaar be li jeex ba gennu ci li ba ñop tacc ko ma delloo taxawat pour président parce que la fay xawa melni euh, mu ngi doon ci deug di wax deug waye bimu mu fi su bëgg togal président ya man nañu wone ne ah kii nekk li mu wax ni yom nek li la bëggona wax kon man nañu ragal ni sax xeyna amna deug yu mu doon jaarale da doon kamas nit ñi waye nekkoo ci mom ñaare bi président mom ku bëgg président mom ci réew mi da nga wax lu xamni li yakar. lañu am ci yow yaakar waye bo waxe fukk juróomi ngay mëna def juróomi doko def président yëpp ñoo em après fi mo mel nonu li ngay bëgge bo démé ba am ko doo ko mané nonu so da nga foog ne fal tamé su toogee dafay toppalaay. waaw am na ci yaakaar mën na ko ñàkk a topp am na ci yaakar parce que moromam wax nako bam togué fukk yam waxon deful yëpp du gambé rek yeneen réew yëpp non la yeneen réew yëpp lu ko mëna fal bëgg réew lu ne nga wax suma togué dina def li dina man li fii toog xamul lii manul lii man man naa lii xam naa lii boo toogee dixième rek la kële defoon foofu ngay jaar da nga tane am na tane wante nag waaye dixième rek daa be ñaari mbe al kontoon na mu nga ñëw noo tudd fu ne kamara man fu ne kamara laa tudd Essa Fall lu moo ne dafa bëgg a nekk président Gambia lan mooy sa xalaat dégguma olof Essa Fall ko a alapta kacce kacce Gambia président mu nem ila ila Essa e Fall ina karte ke son sa fa yaay bi nga fa taa e soma afa mba kontoon na afa bar ban ko to ko soro na mu sol ibe ba taari mbakel ibe mol ne na e, police sol bula ila do ko la bari me bula mo ne la marché kono ila do ko ye lo la mu sol felen ko jambe jambe fudo yem i kam bayle kam bane andu nim police police ente bane be bane na fotulo boy fofano ke kes ma eh, eh, eso konta akanne manka fulanti e en e, sa fali ko ina ma fante manka fulanti ala do ko la sabja salam alaykum rahmatullahi taala wa barakatuh maa ngi jaajëfal képp ko xam ne muy seetaan télé GMTV di la wax ne mala sen dom day sen xarit sen soppe Jalika Sané mo la doon andi programme kadum kaddu mbedd fi ci si GMTV di leen dig dajee ne su Tuesday comme ni ñu ko déggee nit ñi yëpp ku nekk jox na own idea mi wàllum Essa Faal lu ne dafa bëggoon a nekk président Gambia balaa ma leen ay bàyyi rek please subscribe leen dem leen GNTV product fu mu nekk rek ngeen subscribe Facebook Instagram fu nekk rek ngeen subscribe bye for